bi euh, ngi leen di sant di leen gërëm bu xadar laa tudd ci quartier bi laa dëkk depuis 2004 effectivement ministre bi dafa ñëwoon fii benn dëj mu gis euh, cimetière yi tomb yi nekk nii ñëpp di leen gis xale yi di dugg mu ne est-ce que mun naa ko clôturer ñu ne ko waaw mun nga ko clôturer donc euh, deux jour trois jours après mu envoyé agent yi mu envoyé xaalis mu envoyé tout ñu commencé travaux donc effet bi mu am ci quartier bi mooy d'abord sutura wax naa ko ci français léegi nit ku nekk dignité nga war a booy dund boo deewee dañ la war a jox sa dignité dignité weesul ñu suul la ba pare sutural fi nga nekk donc fu mu nekk ni sutural la def euh, sécurité la ñu lañu lañu may parce que nawet si da ngay gis euh, jaani yi n'importe quoi ci nawet ñuy dugg ci kër yi léegi avec le mur de clôture loolu jeex na tey ñu ngi koy sant di ko gërëm ñu ngi koy ñaanal bu baax moom moo xam li mu bëgg ci àdduna ak àllaax yal na ko yàlla defal si Sidiki ci kaw Sidiki ci kanam merci jërëjëf.